Nous sommes dans le village de Kersidi, sur la région de Kaulak, où nous procédons à une première visite de ce puits qui a été euh, assez rapide, machallah. Du coup, on n'a pas pu venir assister aux travaux de creusage, puisque là, on a atteint l'eau et les, travaux de finition sont enclenchés puis Jamila Ben Yahya, qu'Allah lui fasse miséricorde étendue, puis financé par son frère qui a pensé à elle pour euh, lui financer ce puits. Masha'Allah, tout le monde aimerait avoir un frère comme ceci euh, qui pense à faire une sadaqa jariya pour la famille. Qu'Allah accepte pour la donatrice, euh, pour le donateur et, pour la personne bénéficiaire de cela. ndax teen boo ko defee ci dëkk mayoo ko kenn nit waaye dëkk bi yëpp nga ko may mayoo ko pour doomi aadama yeeg rek waaye rab yee picc yee jur yi ñoom ñëpp dañ ci naan kon ku la may loolu dafa mel ni dafa laa dekkil pour nga gën a dund sa njaboot set kon ku la ko may ngir yàlla nga sant ko gërëm ko te ñaanal ko it seen man-man yokku a ah, ñi nga xam ne ñoo nekk suñu diggante ak ñoom ñoom it di leen ñaanal bu baax a baax waaye suñ kool sedd na comme ni ko waxee rek di xewalu dëkk bi yëpp la danañu noppal noppal jigéen yi noppal gune yi. ah jërë ngeen jëf sant nañ leen gërëm nañ leen dëkk moom boo fi indee ndox indi ka fi lu baax ndax fii saara si di ku nekk xamoo ne amuñu ndox mosuñu am ndox bu nekk jafe-jafe ndox rek lañ amoon waaye léegi yàlla dindi na ko. jërë ngeen jëf kontaan nañ bu baax a baax kale buñ sawaree ñu roose buñ sawar ñu bàyyi waaye am nañ dog de robinet ñëw ne waaye kupp nañ ko ndax duñ ko fay moo tax ñu kupp ko léegi na ndox am na ndox am pagaay jërë ngeen jëf kontaan nañ yal na leen yàlla fay fi fay bu baax yaa barke weeru koor bi merci dañ ne di tatagal fii ci biir Saare Sidi ndax ñun dañoo dëkkoon ci coono yoo xam ne yàlla kese moo xam waaye du doomi aadama ndax lakat gale lañ doon lañ doon rootee foofu lañ doon fóotee ji dabaan weeru koor bu ñëwee foofu lañ doon dem rooti ndox mu neex pour ñu ma am luñ naan waaye macha allah léegi léegi moo wax dëgg yàlla a ah, am nañ teen même robine bi sax léegi bàyyi nañ ko ndax robine boo amul dërëm doo root waaye fii nag amul ko am dërëm baag bi na yoore rek ku ñëw rek da nga naan jur yi danañ naan nit ñi danañ naan ñu ngi leen di sant di leen gërëm yàlla moo yore pay yàlla na leen yàlla fay ci sakkoo Machallah, les villageois ont témoigné de l'intérêt de ce puits. C'est un village qui a traversé beaucoup de problèmes d'eau. Au départ, ils n'en avaient pas. Après, il y a eu un puits, mais le puits était euh, très amer en eau. C'est une eau salée, très amère, comme c'est le cas pour certaines nappes ici. Et Alhamdulillah, ce puits a sorti de l'eau euh, qui est euh, douce, qui est agréable à la, boisson et à la cuisine. Donc ils sont très contents pour cela. Dans tous les cas, Inshallah, l'équipe SIAP reviendra ici pour procéder à, l'inauguration. Quand euh, tous les travaux seront finis, on verra le vrai effet que ça a sur la, population. Barakallahu fikum wa jazakumullahu Au pain et sourire, Sakuyu, la collaboration continue.